Euh, su ko defee gannaaw bu ñu jógee ko ci xibaar boobu mbokk yi ñu jàll seeti ab ndaw bi nga xamante nag moom mu ngi yëngatu ci wàllu tàggat yaram daal dina rek am ab signing maanaam nangatoo bi nga xamante nag dox na ci digganteem ak lii di Lespon su ko defee mu daal di war a mun a dugg si seen biir ak itam si lépp loo xam ne méngoog na wàllu football bi mu war a mun a dem foofa dineen seeti moom Seydou Camara mu indi ci yaatal. ndaw bii di wuyoo ci lamaraana Diallo nekkoon foofa ca El Hadj United moom moo daal di xaatim contract ci digganteem ak Sporting Lisbon seen under 23 bi foofa ca réewu Portugal gannaaw bi nga xamante ne ni ràññee nañ xarañteem ci wàllu football bi nga xamante ne ni moo waral mu dem ci réewu Portugal ak tamit jaloore yi nga xamante ne rek moom la ci wone waaye tamit. man-manam pour daal di fexe ba gis ne dina score ay goals ci jongante yi muy def waral na ki nga xamante ne moom moo nekk ndaw bi kenn wirantewut ne bokk na ci ndaw yi nga xamante ne ñoom ñoo gën a xareñ ci wàllu football fii ci biir réewu Gambia. moom ndaw bi nag wane na xarañteem ci African Under 20 Cup bi nga xamante ne nii def nañ ko foofale ca réewu Mauritania ni ki at bi ñu weesu waral na nag jongante yi nga xamante ne Gambia def nañ ko foofa yépp moom ndaw bi bokk na ci ñi nga xamante ne nii dañ ci am wàll jongante yooyu gis nañ ne ñaar ci jongante yi moom moo si nekkoon man of the bu moo gaaralee ay kàddoom nag ci sign bi nga xamante ne sign na ko foofa ca Sporting Lisbon moom ndaw bi mu ngi wane mbégte ak kontaanteem gannaaw bi nga xamante ne nee na dem na bokk ci football club bi nga xamante ne nii seen histoire nag kenn du ko miim ci àdduna si te bokk nañ ci football club yi nga xamante ne nii ñoom ñoo gënle histoire foofale ca Europe mu ne nag mu ngi jaajëfal Sporting Lisbon gannaaw bi nga xamante ne ubbil nañ ko bunte yi pour mu ñëw bokk ci ñoom. waaye tamit Sporting Lisbonne ñoom ñoo nekk national champion si la cere wu Portugal mu ne mbégte ak kontaante la ko def pour daal di bokk ci football club bi le ndaxte am na ndaanaan yu bari yi nga xamante ne nii tey ñëpp ràññee nañ seen i man-man ak seen i jaloore bu ñu def ci wàll football foofu ca Sporting lañ daal di jaar. coach bu under 23 bi mu di Philippe Petro moom itamit wane na mbégte ak kontaanteem muy xamle ne nag lii yokkute la ci li nga xamante ne moom moo nekk tiim bilee mu am foofu la ca Sporting ndaw bi nag mu nga bàyyeekoo foofa ca Elites United. ñëw foofa ca Sporting ak mbégte kontaante Gambia under 23 coach bi mu di Matar Mbodj moom mi nga xamante ne bokk na ci ñu jàppale lamaraana ba mu toll fi mu toll tey ci wàllu football bi di wane xarañte ak man-manam ak pas-pasam moom it wane na mbégte ak kontaanteem mu ngi xamle ne nag ki nga xamante ne rek moom moo nekka ndaw bi am na club si bari yi nga xamante ne soxloon nañ ko loolu nag li muy wane mooy xarañteem ci wàll football bi waaye nag mu ngi jaajëfal ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk Sporting ci bunt yi ñu ubbil lamaraana ba mu ñëw bokk ci seen club bi te Sporting bokk nañ ci club yi nga xamante ne ñoom ñoo gën a màgg foofu ca Europe Seydou kamara Star TV